Mbaye UCAB FM li gën a ci yéenekaay yi Papa Saer Mbaye ndaje mu yeewi askan wi doon amal ni ki ci ngoon daanaka sunu naataango yu bëri moom la ñu xëy kenn ku ci ne duñu ci nettali ci wàllu ko taxawaay bi nga xam ne ñi nga ne kon ñoom ñoo di waa yeewi ak ñañu àndal jot nañu ko amal place ak apes ba nekk ca Parcelles Assainies ca Ndakaaru yéen kaay ñoo xëy rek di xam le rek ne loole ab waxtaanu am solo yoo xam ne jot nañu ko faa def wane na nag li nga xam ne kon moom di seen ab taxawaay ci lu jëm ci wàllu ko li nga xam ne kon moom moo di aw nekkin yéen kaay yu bari di xam la rek ne waa yeewi askan wi ni ki démb day wane nañ seen bopp lool ci taxawaay bu nemmee nemmeeku nanu ko ca l'info yéen kaay bokk na ci ñi nga xam ne kon ñoo ñu koy nettali su naataango yi di xam le rek ne kay nit ki démb foofee nga ne kon moom moo di terrain ACAPES ba nekk ca Parcelles Assainies kay fees del la ko ba tey ne kay ñoom la ñuy lool ci wàllum ko politique bi su di xam ne ay militants yoo xam ne kon bawoon fu ne ak ay leaders yoo xam ne ñoom itam dogu woon nañu lool ñoom nag ñëw wan ki nga xam ne kon moom président Macky Sall ab xaar kanam boo xam ne dana ko rëtloo jëm naka ci wàllu présidentielle 2024 yi Sud Quotidien yéeni kaay ba tey ma nga ci wàllu ko ndaje mi mu ne niki démb kay mbooloo ma fa nekkoon foo ko takk ko bés di ko dëggal ne kay ñi ànd ak waa coalition bi di yewi askan wi niki démb kay lim bu takkoo takku la ñu génnoon wuyu si woote bi nga xam ne kon seen ay kilifa woote woon na leen ko mu doon ay junni junni yoo xam ne kon ba woon fu ne ñëw ca terrain ak APS ba nekk ca Parcelles Assainies ngir rek wuyu ci ci woote benn si ñetti woote yi nga xam ne na leen ko mu doon li ko dale fukk ak ñeent fukk ak juróom ba fukk ak juróom benn fan ci weeru mars wi kaay bi ne loole mu doon ab dox boo xam ne kon wane nañ ca li nga xam moom di seen li ko dale ci Khalifa Ababacar Sall ba ca Ousmane Sonko jaar ci Habib Sy Moussa Tine Barthélémy Dias Ahmed Aïdara Moustapha Guirassy Mamadou Lamine Dianté Maymouna Bousso ba ca Aïda Mbodj Cheikh Tidiane Youm ak yeneen ci ay kilifa bi xam le ne kay discours yi nga ne kon jot nañ ko faa yëkkati kay mu doon discours yoo xam ne la ci ëpp rek bokk na ci luy soxal mbirum troisième mandat doon ñetteelu falu boo xam ne kon nee nañ bëgguñu koo dégg benn yoon président Macky Sall di ko tudd wala mu koy xalaat waaye itam jéem gi nga xam ne kon moom la ñuy jéem li nga xam ne kon moom moo di tënk lii di ëttu attekaay waaye tam teg loxo gi nga xam ne kon ñenn ñi dañ leen di teg loxo te teguñu ko fenn ñu ne nag loolee lañ bëgg mu dak coalition Yewwi Askan Wi yéen kaay bi ne kay du yam ci li nga xam ne kon moo jëm ci wàll ko ndajeem démbam mi mu doon amal ca Parcelles Assainies ca Ndakaaru kaay bi ne dox yoo xam ne kon da ko bëgg amal niki ci àllarba ak ji di àllarbay tey alxames ëllëg ci mboolem ci biir réewum Sénégal yéen kaay bi di xam le ne ñi nekk ci kujje politique nañ seen ay kàddu ne nag lu jëm ci wàllu détention arbitraire doon jàpp gi nga xam ne ko na ndam ci seen woote bu woote woon nañu ko niki démb yëkkati na ko fa ne nag ñoom responsable yi kenn ku ci nekk wax jox sa morom mu daati feelu la sunu naataango di xam le ne ñoom ñëpp rek seen wax ma nga jooy jëm ci président Macky nga xam ne kon nee na nag bugguñu benn yoon muy a jaay doole ci ñettalu mandat boo xam ne kon bugguñu ko caa dégg yéeni kaay bi nekkee lu jëm ci wàllu ko mbindu mi ci liste électorale yi nag ña nga cay soññ seen ay ñooñ ngir ñu dem bindu ca Sud Quotidien ba tey sàkku nanu ci ni ko alxames ji ñoom ñëpp nag ñu ñëw wuy si ci tribunalum Ndakaaru fekke si atte bi nga xam ne kon war nañu ko atte ki nga xam ne kon moom di Ousmane Sonko digganteem ak Mame Mbaye Niang Niang mi nga xam ne kon daf ne da koo yàqate deram enquête yéen a kaay nekk yeewi askan wi fi mu toll nii nag daanaka mobilisation bi nga xam ne kon defoon na ko démb loolu nag ne kon ko yéen kaay bi ne kay bi ne kay niki démb kay li nga xam ne kon kon moom lañ fa gis lu jëm ci wàllu ko couleur bi nga xam ne kon Yewwi Askan Wi kay laata woon na takku lañu fa gis su naataango yi ne kay kay ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di waa Yewwi fësal nañ li nga xam ne kon mooy seen taxawaay te nag moom xëy wane na ko boppam ci li nga xam ne kon moo jëm ci wàllu ko jotaay boobu moom mi fi nekkoon Ilimani Jëwrin yéen kaay nag fi mu toll ni bokk na ci wujji président Macky kay bi nga jamono ji fonds monétaire international ñoom nag jamono ji lu jëm ci ay la ñuy waajal yéen ko programme boo xam ne kon dañu ko fas yéen a séq nguuru Sénégal ngir mën a xam rek lu jëm ci wàllum koom mi naka lañ leen ci mën a jàppale ba gën koo joyanti négociation yoo xam ne ko ñu yees la ñu nguuru Sénégal FMI ne nag fi mu toll nii kay rafetlu na lool taxawaay bi nga xam ne kon Sénégal taxaw na ko ca mi avril doon digg weeru avril wi ci la ñu waajal lu jëm ci wàllu ay waxtaan yoo xam ne kon danañ ko ca séq Edouard Gamayel moom nag mooy xamle lu ne mel moom mi chef de mission bu FMI na ko amal ne nag laas moo ñu koy nettali ne kay jamono ji Sénégal kay am nañ yaakaar lool ci lii di 2023 ñu am ay ndam ci lu jëm ci wàllu croissance bi nga xam ne kon ñu ngi koy séentu euh, bi moo ñu koy nettali Dakaractu mu amaloon nanu ko ca fii fii Parcelles Assainies euh, coalition bi ko amal yéen kaay ndangaan ak lu jëm ci wàllu ñi di opposition bi nga xam ne kon waa COJER taxaw nañu fa ne nag ñoom taxaw taxaw nañu fi mu toll nii nag ngir gekku bëgguñu may dara lii di ku jëkk politique yi yéenekaay bi dakaar Actu moo ñu koy nettali igfm point sn yéenekaay la bu nekk ci internet bi moom itam bokk ci groupe Futurs Médias moom nag jamono ji nga jëm ci li nga xam ne kon moom moo di l'histoire bu nëbbatu boo xam ne kon jëm na ci ay nataal yoo xam ne kon nataal yi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba la ñu jële ko ca Tugal yéenekaay bi nag dellusiwaat ci lenn ci loo xam ne kon bokk na ci ay taarix yoo xam ne kon lu ñu fàtte wala bokk loo xam ne kon daanaka ñu bëri umpale nañu ko ci Serigne Touba Cheikhul Khadim su naataango yi dellusiwaat dinu ko xamal ba tey yéen bi dakaar Actu ca la nu koy jeexale sunu naataango yi nekk ci internet bi ñoom nag ñoo xëy dinu xamal nag ne jamono ji kay lu jëm ci wàll que li nga xam ne kon moom moo di bu nemmeeku nanu ko fi mu toll ni kay ay rassemblement yu bëri yoo xam ne kon jamono ji kay ñii di kujje politique ñu koy waajal Dakaractu point com nekkee préfet bu Ndakaaru moom fi mu toll ni lu jëm ci wàllu marche yi nga xam ne kon Pastef ak ñu ñu àndal ñoo ngi koy waajal moom kii di préfet bu Ndakaaru génne na ay tereem te nag ma nga ca indi leeral mbokk yi ne kaaya ngoog dig daje lëkk incha allah. UCAB FM. li gën a fës ci yéen kaay. Papa Saer Mbaye.